Valdiodio Valdiodio Ndiaye euh, ñu ngi lay nuyu di la dalal. Euh, maa expert électoral la bokk ci collectif des organisations de la société civile bu Sénégal tey mu am benn coow bu fi nekk gannaaw nag euh, ministre de l' intérieur ba mu invoqué article trois bu loi quatre vingt et un dix bu mille neuf cent quatre ngir dakkal bépp levée de fonds bu Pastef daal di amal jamono ji lan moo ci dëgg ci mbir mi ndax am na droit tere Pastef mu daal di woo ay militants am ñu dugal xaalis. xam nga li ñuy faral di wax droit dafa sew. Mhm. moo tax euh, mbirum droit toujours day bëri ay interprétation mhm. boobu ngay évoqué noonu li muy tere mooy maanaam parti politique taxaw dem wuti ñu koy jàppale te ci à l'extérieur te duñu ay Sénégalais mhm. maanaam tey boo gisee euh, parti politique bu dem par exemple ay tubaab ay français wala ay américain wala ay asiatique di ko financer mhm. loolu la loi di dàq waaye ay sénégalais yoo xam ne ña nga toog Italie nekk Espagne toog euh, Chine nekk Côte d'Ivoire nekk comme man mi nu ma nekkee Côte d'Ivoire mhm. wala nekk Afrique du Sud di jàppale benn parti politique di cotiser loolu loi bi taxawul ko parce que loolu moo tax d'ailleurs boo xoolee ci élection yi dañuy organiser élection au niveau de la diaspora mhm. donc c'est des Sénégalais entièrement sénégalais mm -hmm. voilà pas entièrement à part donc euh, ci loolu il faut que leeral mbir donc ministre ministre de l'intérieur communiqué bi mu def pour man euh, munoon ci bañ a yegg mhm. munoon na simplement woo euh, administrateur parce que mhm. ne ko euh, dama bëgg indil ma ay clarification kooku jox ay clarification wax ji yem foofu mhm. donc euh, vraiment ñu bañ a dugg ci ay débat yu nit yi di saaganti fii di tëb di dal et parce que pour man dama jàpp ne Sénégal fu ñu toll priorité yi feneen la nekk nekkul ay détails yoo xam ne par exemple des fois da ngay dama remarqué benn affaire dañuy jël benn mbir bu ñàkk solo jékki-jékki di ko di ko jox ampleur di ko jox ampleur ba nga xam ne dañuy jàpp ne dafa important alors que lii lii am tey activité wu benn parti kese kon bu ma la déggee ngay wax ñàkk waxtaan rek la mais du problème d'interprétation mais bien sûr parce que parce que parce que boo xoolee bu baax. Mhm. ñàkk waxtaan la problème u interprétation parce que ministre de l'intérieur ni mu ko waxee dafa junj ne ñii li ñuy jot ci xaalis ñii leen di jox xaalis bu du ay sénégalais. Mhm. waa PASTEF ne déedéet ay sénégalais yi nekk ci diaspora bi ñoo ñuy jox xaalis. Mhm. donc foofu am na ñàkk waxtaan am na aussi problème d'interprétation. d'accord mhm. maintenant euh, bu ñu toogoon waxtaan moom ministre de l'intérieur. am na cër bu toll nii bu ko mun a convoqué administrateur bu Pastef na ko mbir mi naka la tëddee. Mhm. mu leeralal ko ko wax ci jeex ñu jàll ci leneen. Mhm. Mhm. donc vraiment dañuy éviter détail loo xam ne amul solo ci réew mi ci réew ñu koy jël di ci wax di ci wax di ko tourner ba nga xam ne dañuy jàpp ne dafa am solo. alors que tey li am solo Sénégal mooy naka la ñuy gérer inondation yi post inondation yi jeex naka la ñuy appliquer Euh, euh, yenn conclusion wu dialogue politique bi ñu def. Mm-hmm. Mm-hmm. naka la ñuy euh, régler problème mu emploi des jeunes. naka la ñuy régler problème mu agriculture bi naka la ñuy régler problème mu ak éducation bi naka la ñuy gérer la cette affaire de Covid yooyu pour man mooy enjeu yi interpeller état bi dëkk. mais monsieur Ndiaye débat ah, bi koom bi naka lañ koy répartir. débat bi dafa doon lu fi débat bi daf fi sax hmm. yàgg nañ koo dégg bi lépp du bu njëkk euh, tey jii xanaa financement parti politique bi dafa am problème dëgg-dëgg. xam nga mbir moom. Hmm. Euh, dañu am ay loi yoo xam ne dañ ko jëloon depuis mille neuf cent quatre-vingt-un sur la loi sur les partis politiques hmm. au Sénégal loi boobu après révisé nañ ko tuuti deux mille cinq ak deux mille neuf temps bu jamonoy Ablaye Wade mais dañu xool di bu ñu ko seetantalee seggi ko dañu rendre compte ne dafa doon loo xam ne dañ ko nar a càmbaraat mhm. adapté ko ak évolution réew mi loi boobu nag tey boo xoolee bu baax en 2015 ONG 3D ak collectif des organisations de la société waxtaan mhm. waxtaanoon nañ ci waxtaan bu am solo ak ay universitaire des professeurs d'université ministère de l'intérieur ak ñëpp ñi pàcc bi intéressé ñu defoon si benn projet de loi wu code des partis politiques mhm. jëbbal ko ministère de l'intérieur ci projet de loi de codes des partis politiques boobu dafa amoon pàcc yi dañu xooloon critères yi naka lañuy ñuy financer parti politique yi naka lañ leen di financer moo doon Euh, dañuy xool bu ñu demee élection parti bu gën a am doole naka lañ leen di répartir parti boo xam ne am na ancrage social am na hmm. ay résultats élection yu baax ñu xool financement yi naka lañ koy organiser hmm. entre partie yi gën a représentatif ci réew mi muy benn ñaareel bi xool naka naka ñiy bokk ci partie bi naka la ñuy cotiser pour parti bi ndax naka la ñuy amee yeneen façon xaalis yoo xam ne dafay licite Mhm. mooy maanaam day jaar yoon loolu yëpp bindoon nañ ko ci projet de code des partis politiques mais tey mhm. bu ñuy xool bu baax projet boobu bi ko defee en deux ko ministère de l' dañ ko denc ci tiroir yi ba biig ba sax kenn waxatu ci d'accord alors que xamoon nañ ne wax jooju dina dellu si parce que tey Sénégal boo xoolee sous région bi ay Cap-Vert ak yooyu yëpp dëkk yu bëri dépassé te ñu ci kaa kaawu financement des partis politiques ba ci ay Mali ak Togo ba loolu day pousse souvent parti politique yi di dem di wàlliyaani di wuti xaalis feneen mais wàlliyaan boobu nag euh, loi bi existe actuellement mm-hmm. dafa ne boo koy wàlliyaani na doon ay sénégalais yu nekk bitim réew yu lay jàppale pas ñoo xam ne dañuy nekk ci yeneeni mbir wala nekk du ñu ay non du ay sénégalais mooy maanaam ay étrangers organisés wala des groupes organisés di la di la Euh, te nekkuñu ay Sénégal te groupe yooyu loolu lu ci loi bi di bañ pour bañ mu am mooy maanaam ëllëg yooyu boo ko réglé wu verrouillé ko un groupe terroriste mun na ñëw financer parti wala ay cartel de drogue mun na ñëw financer parti politique mhm. imagine toi mare d'Italie parti bu par exemple ay dealer financier euh, mu ñëw def fi campagne jënd ñëpp jënd tout def campagne électorale nit yi topp ñu jël réew mi mooy maanaam ñun tas su nañu donc yooyu moo tax loi bi ko éviter ñu vérifier ko pour éviter ñu sombrer ci côté ko mais fondamentalement man li ma mhm. mooy maanaam lii acteurs politiques yi dañu nar a toog ñu génnewaat projet de loi boobu teg ko ci table bi càmbaraat ko waxtaan ci dégager si benn consensus jàll ci leneen ñu adopté ko vraiment ñu jàll ci leneen problème benn ponk bi nga xam ne intéressé nañu ñu bëggoon a laajte ndax tey jii comme ni ngeen ko proposé euh, bu nguur gi jëloon dogal ni day euh, financer parti politique yi ndax parti politique yi dinañ indépendant ndax ku la abali gët fu ko neex ngay xoolee. dinañ non non non mais foofu ci poñ boobu. ponk boobu dafa am nuñ ko ko traité. d'accord dañu ne ponk boobu. kii administrer fonds bi du mm-hmm. doon exécutif bi mooy maanaam gouvernement bi ak président mm-hmm. kii administrer fonds yi séddale mm-hmm. day doon benn organisme indépendant organisme indépendant boobu mun nañu càmbaraat Sénat bi ba ci commission électorale euh, nationale autonome mun nañ ko càmbaraat xool mécanisme bi ba nga xam ne moom mooy joxe fonds yooyu mais ku koy taxawal beaucoup d'autonomie ku koy taxawal non Sénat bi actuellement. xam nga Sénat bi ça mm-hmm. ne Sénat bi existe na. d'accord. am déet. d'accord oui. Sénégal amul Sénat. ok voilà léegi ñu dénk ko institution bu mel ni Sénat. Mm-hmm. wala ñu dénk ko beneen institution yokk ay prérogative am boo xam ne bu boobaa ni ñu koy nommer mode de désignation yi ñii ciy bokk dañ koy xoolaat yooyu yëpp mun nañ ko mën nañ ko retravailler question de consensus la. ba pare wàññi aussi. Euh, naka la président di nommer ñëpp yooyu aussi il faut ñu xoolaat parce que aussi souvent loolu mooy doon problème parce que président ni nga gisee moom mooy nommer moom mooy nommer presque membre du Sénat yëpp alors que aujourd'hui loi bi ñu waxoon ci Sénat mooy maanaam moom bu ko nommé par exemple ñeneen membre Sénat yi groupement socio-professionnels yi ñoom ñoo di nommé. bon par exemple représentant des avocats représentant des professeur d'université de société civile et cetera yooyu yëpp dafa doon ay actes yu ñu posé mais seen nañu aussi je vais faire benn digression donc mm. Mm. Sénat bi mi ñu mujjee nommé président de yeewu rek di nommé rek di nommé rek nommé tul bàyyeetul groupement socio professionnel yi proposé ko dara yooyu lañ ci nara débat lijjante mbir yooyu d'accord wax ci leneen monsieur Ndiaye muy élection locale yi nga xam ne jamono ji 2021 la waroon a am tey ñoo ngi laam-laame dàq gi donte officiel gul am nga yaakaar ne mën nañ ko amal 2021 gi waaw mën nañ ko amal 2021 parce que boo xoolee bu baax ci jamono ji ñu tollu comme dindi nañu mbiru parrainage mhm. euh, ñi ngi waaj a démarrer affaire auditu fichier bi ak évaluation processus électoral ci ñetti weer mhm. mooy maanaam ñu ko def ci mois de janvier bi février mars jeexantal ko ci avril mhm. am nañu temps maintenant de prévision exceptionnelle des listes électorales euh, mois de mai par exemple ensuite stabiliser liste électorale bi définir carte électorale bi durant mai juillet mais mun nañu fii ba décembre convoquer élection locale mais xam nga nag dafa am benn mbir bu ci nekk euh, réew mi ñu toll mi ñu toll. Mhm. mooy maanaam yow mënoo xam li nekk ci bopp politicien. politicien moom dafay nekk ci ay mbiru calculer ma stratégie ma mhm. xam ne yow boo booy convoquer logique sax des fois logique moom day wute day féewaloog sa logique yow. Mhm. moo tax euh, mbir bi day waar. tey mais uh-huh. élection locale yi mun nañ ko tenir en deux mille de chaise yi ñu gis maanaam ci poli politique bi tey ña nekkoon opposition euh, am na ñu fa joge dem ca euh, mouvance présidentielle ndax gis nga ne euh, am na maanaa tey ñu àggali dialogue national bi. mais bien sûr parce que en fait mais il faut que ñu taxaw seetlu. Hmm. taxaw seetlu bi mooy maanaam. xool recomposition politique bi naka la tëddee. Mm. parce que aussi Sénégal loolu moo fi xaw a jafe. da ngay jékki-jékki gis benn waaye joo xam ne dafay nekk opposition euh, ngay def ak moom réunion tey mu ñëw di représenter euh, opposition. Mm-hmm. Euh, suba nga yeewu. dajewaat tax moom ci même espace mu ñëw di représenter mouvance présidentielle ci mm-hmm. Euh, day day rendre plus flou le l'espace politique. Mm-hmm. moo tax li am solo. mooy maanaam il faut ñu régler ko d'une autre manière mooy maanaam euh, vraiment xoolaat naka la ñuy organiser les choses taxaw seetlu ba recomposition politique bi leer bu leeree nag il fois que mu leer maintenant ñu continuer jarum politique bi daal am na ñu continuer ko ma la déggee ngay wax. bien que xam nga boo déggee euh, li may faral di wax mooy maanaam euh, li dialogue politique dafa doon loo xam ne mooy dundal démocratie. Mhm. mun ngeen bañ a mais dangeen ngeen nar a di dialoguer au plan politique. loolu dafa am solo ci réew. Mhm. da seet même démocratie yi ñun ñuy faral di seetlu euh, liñ ci remarqué mooy. Mhm. la plupart du temps. dina ñëw da nekk opposition di waxtaan ak ñu nekk pouvoir bi sur des questions d'intérêt national mm na maintenant bu fekkee nag euh, mais tout en gardant sa identité ak sa personnalité Sénégal defon nañ ko fi ci Covid bi parce que ci Covid bi président recevoir on na fi ay ñoom Khalifa Sall mhm. recevoir fi ay ñoom Ousmane Sonko ak ñooñu et pourtant taxul après ñu créer leneen peut-être Idrissa Seck mais fondamentalement yeneen yi ba léegi ñu ngi ci ci ci ci opposition bi. d'accord donc loolu parce que amul problème. Hmm. Valdiodio Ndiaye merci beaucoup. merci beaucoup. may fàttali ne expert électoral bokk ci collectif des organisations de la société civile merci.